alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala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 محمد كبير دام ومن هنا من الإخوة إخوته أحيي السادة أبناء السادة من القمة تعرفون القمة إلى قاعدة القمة تحية ملؤها التجلة والاحترام وقبل أن أتلفظ بأية كلمة بلغتنا العلمية ولف أود أن أشكر السادة المنظمين في هذا المكان الذي أعرفه ويعرفني أشكرهم على تجدد الثقة وعلى istimraariyati fima taahadna ala taati fi suuxihi min alxubbi fi llahi wa billahi wa taawuni ala albirri wa taqwa li tawciyati shabaabina wa inaasi man hum fawqahum sinnan walqasdu alistimraaru قال النهج الذي ربينا عليه والمربي تعرفونه ويعرفه زيد وعمر وهند ودعد وأدعو الله تعالى أن يوفقنا في هذه وغيرها من الليالي والأيام لما فيه الخير والسعادة دائما وأترضى ومن كل قلبي عن العارف رباني شيخ الحسن دم الفوتي التجاني الإبراهيمي المديني عرفته فعرفت فيه كل ما كنت أود أن أجده في صديق والموضوع الذي دعيت لمعالجته ولو سويعة أشرتم إليه إنه التقديم والمقدم في التجانية أعلى الله منارها ويدعوني هذا دون تأنق في العبارة أن أتساءل ما هي الإجازة عندنا ومن هو المجيز أي المقدم وصفته أيوة ولماذا التقديم أصلا يا ترى ومتى وكيف وما أقسام الإجازة أو درجاتها وبالتالي من المقدم عليه ومعلوم أن للورد شروط صحة وشروط كمال فهل التقديم والتقدم أيضا له شروط صحة وكمالا أه وما معنى علو السند وما معنى التجديد ودواعيه في الطريقة التجانية ولكن قبل كل شيء سئلت سئلت قبل ذلك كله آنفا عن صاحب الفيضة العظمى من لقنه الورد التجاني نحن نعرفه لكن السائل لم يعرف أنا منبئك لا تعجل فنبدأ إذا بالسؤال الأخير عن مقدم المقدمين والمقدمين عن الشيخ بكل مراتبه عن ذي المقام الذي تسامى إلى أن بلغ الغاية التي لا ترام ليس يدري مقامه غيره بل منه حتى عن المقام اكتتام في الكتمية قال لا مقام من المقامات إلا وله بالحقوق منه قيام رضي الله عنه من الذي لقنه أنا لو أخبرتكم لكنت كمن يسوق التمر إلى هجر ولكنني أدعه هو يقول لنا بقلمه من لقنه الطريق فنجمع بين الخبر الصحيح والكتابة الأنيقة والعطاء المبارك يقول الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وأنا أقرأ من الصفحات الأولى من إجازتي الإطلاقية التي أعطانيها تجاه الحرم النبوي في مدينة المنور يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما تريد أن تعرف من لقنه اسمع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 سوف أتي قال أما بعد فمن منن مولانا جل وعلا أن أبرز في هذه القرون عند اندراس معالم الإيمان وتراكم الشؤون تصديقا لما وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم من كون أمته ثلثي أهل الجنة كما أخبر به الأمين طريقة أخرج طريقة لا يوفق لها إلا سعيد بفضل باب الأفكار البرية الفعال لما يريد وهي طريقة شيخنا وشيخ المشايخ قطب الوجود وخاتم الولاية ذي المجد الراسخ الشريف المنيف والسميذع الغطريف مولانا أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد بن سالم بن التياني رضي الله عنه ونشر الحق بفضله في الخافقين منارها وأيدها وحفظها وبث في قلوب الأصفياء أسرارها فكحل عيون أهل السعادة فأبصروا أنوارها من فقد تخرج فيها على يدي إمامها في مدة يسيرة جمع من الكمل الأصفياء من سالك ومجذوب وصلوا إلى أعلى مقامات الأولياء فوصلوا وأوصلوا وكملوا وأكملوا وعرفوا وعرفوا وتربوا وربوا وترقوا ورقوا وخلفوا ولم يزلوا هلم جرا وحالتها هكذا ولذلك فمن أكمل من أدركت من كملها وظفرت على يديه بجل أسرارها إن لم أقل كلها شيخي ووالدي وعمدتي وأستاذي ألا وهو شيخ الأكبر والعلم الأشهر شيخ الإسلام أيام أمير المؤمنين المجاهد سعيد بن مبه وقاضي قضاة المسلمين وإمام المحاريب وخطيبها المدرس النفاع واسع العلم وطويل الباع من لا تأخذه في الله لومة لائم الآخذ بالأحوط صاحب الكرامات الباهرات والكشوفات الصحيحات من حج بيت الله الحرام عام ثمانية من هذا القرن أي القرن العشرين المنصرم وتلاقى بالجم الغفير من علماء المغرب والمشرق ومصر والشام والعراق وكلهم أقروا بتبريزه ثم لم يزل مدرسا ila an tuwuffiya baada ma rtaxala ila almaghribi li ziyaarati mawlana alxatmi tijaani wa adraka jamman gafiran min fuxuuli tariqatihi fa ajaazuuhu wa qaddamuuhu wa shaafahuuhu bima laa tuktabu fi alawraaq wala tunzaru bilaxdaaq wa rajaca ila hadihi albilaad alsenegaaliyati wastawtana kawlaqa wantasharat tariqatu ala yadayhi intisharan cajiiban وأخذ عنه ما لا يقل عن مئة ألف ila axiri maqaar idan man laqanahu huwa haada Alfayda FM mbooloom nañ waxtaan tuuti moom xam nga guddi kët mi ñu toogee ba quatre heures yoon trente minutes sax baax na lool dama ne gannaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam gërëm euh, usratu habibi wa sadiqi wa axi fillah Cheikh Hassan Deme ak seen i gan maa ngi leen di gërëmee lan tajaddudu siqa maanaam confiance boo xam ne dañ koy renouveler di ko beesal wax waxtu wu jot rek euh, bëgg nañ nga ngi ñëw yooyu bëgg ngaa ñëw maa ngi leen di ñaan yàlla mooy yu tawfiq maa ngi ñaan mu gërëm lool ngërmaane luy faidat al arif rabbani Cheikh Hassan dem mi ma askan Fuuta askan ko Tijaaniya askan ko Ibrahimiya bi askan ko Medina gii moo tax ma ne Madini ndax boo ne Madani ak Madini xam ngeen di ci olama wa ma nag li ñu fi li ngeen ma tànnal pour ma waxtaan ci ma d'accord ci parce que waxtaan wu gàrt la war a doomam ndax moom mbiram mbiram zahir la moo xam ne bàtt na ko yóbbaale moo di taqdim jiital lijaasaal ak muqaddam kiñ lijaasaal jiital ko ci tariqa tijaaniya maa ngi ñaan yàlla yàlla na ay raayaam doolee jëm kanam moo tax ma ne moo moo luy lijaasa sax ak kan mooy joxe lijaasa ak mu muqaddam moomu ak meloom mooy kan li tax sox ñuy taqdim lan la li tax mbir mi mënta ñàkk taqdim lu tax ak kañ la ak nan la lijaasa sox ñaata xaaj la su boobaa danañ laaj ana al mu muqaddamu alayhi kiñ taqdima ngir moom ñu ne wóor nañu ne wérdu tijaan am na churutul kamal ku ko nanguwul duñ la ko jox am na churutu ah churutu sixati sixati sixati wér a yay tax mu wér ku ko nangu nanguwul la ko jox am na itam shurutul kamal noo ci gën a xuusee di gën a jege mat mat kamal ñu ne ndax kon taq itam am na ay chart ma ne woon nag euh, ana luy bu ñu waxee ulu sanad ci ijaaza ak sanad mooy lan dañuy wax sax tëj diit tëj diit eesal luy tëj diit ak lu koy indi ma ne bala ma dugg ci yooyu tontu ko bu gaaw dañ ma laaj laaj gu mujj sànq rek ne ne ma yéen fan ñëpp xam nañ ko waaye bàyyi ku ko jox wirdu tijaan may ne nag loolu du samay wax dama leen di bàyyi bàyyi ci boppam waxal ñu ko ma ne bu ko waxee wax wax dégg nañ dëgg ga lépp te itam da nga gis nit kuy bind arab yu rafet ndax ci arab la ko bind te itam mbiram yëpp barkee bàyyi dafa sant yàlla ci yonent bi saabam yi ma ne maa ngi koy liire ci lijaasa gi ma jox ca madinatu munawara ña nga jubloo ko rawda rawda sharifa mu ne ma mu bind ca lii sant yàlla moom mi xamee kenn la képp cappa coli wéet ñu jublu ko ci mboolee mi aajo jurul kenn juru ko amul benn nawle bu dend ak moom moo kuy wéeru rek mooy sa wéeruwaay julli ci yonent bi nga xam ne moom itam ku wéeru ci moom wéeru ngi ci lu dëgër nga xam ne moo ubbi moo tëj moom la yàlla dëgëral muy durratul bayda ala durratul bayda yi kaana liqaawuna yéen a ngi fàttali ko daj e, Cheikh Hassan nga xam ne tuddee na yonent bi jawharatul kamal tuddee ko kantulaa ba ndàmb lu mag li ki nga xam ne mooy suñ sukkandiku waaye dootuñ yëngatu moom ñépp boo ko pare ne julli gi nag minal azal ilal abad dafa ne maa ngi wax ne bokk na ci xéewali yàlla génn ci suñ jamono jamono yu mujj yi mooy bi ñu demee ba nga xam ne daanaka liimaan boo yéexee rek mu fa far àddina jaxasoo mbir yi lëj yàlla génne lu tax la yonent waxoon ne xeetam ñooy nekk ñaari ceeru waa aljanna juróom-ñeent yu dugg aljanna rek juróom-benn ya ci xeetam lañ bokk. Eh, mu ne moo tax bii fi jaxasoo mu indi tariqa bu tax loolu am. xool ni mu fasaayee kaar maanaam tariqa dem aljanna la ci àddina ak ci àllaxi tariqa boo xam ne mu ne kenn amul chance dugg ci lu may ku texe rek te loolu yàlla la ko may nga nee la lu ko neex mu def mu ne moo tariqatu suñ sëriñ bi sëriñu sëriñ si xutbul wujud i ki kaste wilaayal muhammadiya yàlla may ko teraanga ju sax ju kenn mënta yëngal muy shérif bu darajaam kawe nasaban mu an anan ila muhammad nafi zakiya ila ibn abi talib di sang boo xam ne foo xool rek seen ko mawlana bil abbas abbas na ahmad ibn mahamad ibn salim tijani bàyyi ne yàlla tasaare moom yàlla miy xaqu mu tasaare ci baax gi mu baax tariqa bi ci penko xar da ngeen léegi suñu doom naan di ñu fàttali ba sidna cheikh ne ana rajuluha min qaafin ila qaaf yàlla dëgëral ko moom tariqa bi ñu bés bés munuñ ci dara mu wattu ko ñu jéem-jéem mu ne mu nefi rek te jamono ngi nii yoo xam ne ak te nanga bi at yi passé Eh, juróom ñaar fukkaat yi passé jëm noonu tariqa bi rek xeeti fexeel fexeel nañ ko ko yoo xam ne loolu rek doy na karaama gën a muy gën a muy gën a dëgg ki ma mujj téléphoné ma nga ci New Delhi ne ma maa ngi doon déglu waxtaan wi ci Sidna Cheikh yal na la yàlla fay New Delhi mu ne yàlla tasaare ko dëgëral ko dugal ko ci xolu ñu yàlla sellal seen asraar yi jaxasoog asraaru tarixa bi yàlla tusngal bëti ñi texe ñëpp bu ñu xool tarixa bi kenn du bémpéen kenn du wane waxin la mu ne ñu gis leer ya yàggu tuuti rek tarixa bi formé ay góor ñoo xam ne ci jamono ju gàtt dañoo mët sell bokk ca ñoom mu ne ñii dañoo soobu ñii dañoo am jës bu mu dañ ba egg ca fa gën a koy ci maqamatul awliyaay bàyyi mu ne fa wasaloo tañ yegg te muñ cee wa aw saloo tañ eggale mu ne wakkamaloo tañ mat wakkam wakkamaloo tañ matale itam mottali wa arafoo tañ xam yàlla wa arafoo tañ xamle ko wa tara wa tarabaw tañu yaru tarbiya bu wér wa rabaw tañu yare wa taraqaw tañu yéeg waraqaw tañ yéege wa xalafaw tañ wuutu naka ay xulafaaw cheikh mu ne walam yësal wa haluma jarra wa xaadatuha haka ba léegi nag noonu mu départ noonu la mel ba tey bàyyi ne wallahi lawla annani fanitu fi cheikh ahmad xaya an mittu ci kanu 1951 ngir lam gis ci bëgg yonent bi bëgg cheikh cheikh ahmad tidiane bëgg ko di kër kër yi ba lawla al asaakiru la jëlal xataru wali wujudihim usila dararu alkaatiya ñoo foor rek taxaw ni kon du baax daañ ko écraser mu ne soxtoo nag li ma jeex ci ahmadiyatu seydi ahmad tijaani kon dina am kersa sax faf dee bo dégg nga de ñu mët jaar foofu yépp mu ne nag maa ngi leen wax ne ci ñi gën a mët ci tarixa bi ñi nga jot naa seen jamono maa ngi la ciy tuddal kii may wax si ndaxte jot naa ko ci loxoom laa amee li ëpp ci mbóoti tarixa bi suma ma sox sax lépp mu ne nga ne ko mooy kan mu na cheikh yi suma sëriñ wa walidi tey suma baay wa umdati tey suma sukkandikuwaay wa ustaad yi tey suma professeur alaa waawee wa huwa moom ki may junj noonu di ko melal a cheikhul akbar mooy sëriñ ba gën a mag nag wala alamu tey drapeau la chër ba gën a flotte ca kaw gën a siiw cheikhul islaam laqabam la ayaama amirul muminina fentuñ ko temps bi amirul muminina maba nekkee fii di buuru jullit moom mooy amirul muminin mu ne mooy qaadi qudatul muslimina atteem daawoon ca teg baat mooy imaamul maharib mooy jiite tew ku julli ci gannaawam rek xam ne julli nga nag yaa li tilka salaati fa hiya silaatun wa li daaka salaami fa huwa salaamu cheikhaane koo xoon bàyyi waaye loolu yàgg na foofu julli la koo xam ne dafay connecté mu ne ba mu ne salaamaaleykum jàmm la mayee ba taxoon mu ne ci jumaa ji laa tazal muhriman lahu bi tawaafin xaysu lil bayti faataka ihraamu bu la ajjafee bul foog ne perte nga del dem ci jumaa ji rek ndax fa muraadu ilaahi minka salaatun wa zakatun wa hajjatun wa siyaam niyaam wa yaqiirun bihi wa ifraadu wajhin wa shuhudun anul anaamu niyaamu juróom-ñaar yi yàlla so sopp ci yow yëpp yi sàkko yi bëgg ci yow yëpp mooy nga julli joxe asaka or dégg nga nangam nangam ba wéetal saw wijhatu fenn nga jëm mooy ci yàlla ak nag egg ci jour goo xam ne ñëpp ñu bëri ngi nelaw xamuñ ci dara teew ci ngay dund nen nag baabu zaakal muraadi min ka jamian markazu sirri ramzuhu barhaamu mu ne yooyu yàlla bëgg nga mel ko nag bul sonn bunt ba la cee yóbbu mooy le centre du secret barhaam ey ndis Alfayda FM maamalaaji mu ne ko mooy mooy mooy imaamul maxaarib wa xatibuha al mudarrisu nafaa jàngalekat bu mag bu njàngaleem am njëriñ waaw ah, maam alaaji jàngale rek ay liggéey bu dul dara sax xam nga ne ku dund juróom-ñaar fukki at ak nangam firi alquran téeméeri yoon ak ñetti yoon ñu ne xam nga ne daanaka mësuloo toog bokkut ak la nga doon jàngale ci ay funuun ak la nga doon jaamu yàlla yàlla moo mën a maye yal na ñu may ci seen may mu ne nag maam moomu jàngalekat boobu dafa doon koo xam ne dafa nekk taw tawilul baax lim xam daf ko xam lool ba yokkal ñu ci ne nu téere bu mës a am bala koo denc daf koy jàng minal xilaaf ilal xilaaf doolu te mu ne lu mu jàng lu mu xam rek du ko fàtte kon ki ko jox wérdo waa nga noonu mën nañoo wax dara mu ne nag euh, laa taaxudu fillaahi lawmatullaahi dëgg ak def lu baax yedd mënulu ko ca dara al axudu bil axwat mbir mu nekk dafa sàmm ba nga xam ne la gën a rek ca lay jàpp wala dafa bëri ay karaama yoo xam ne sox dafay jommal nit ñi daanaka dafa leen di miirloo bëri na ay kashfu yoo xam ne yépp lu mu ci wax rek mu am népp ci gundari kaam mu ne ajoon na néegu yàlla ba ca bi xarnu bi passé amee juróom-ñetti at hmm. maanaam maamalaay ba mu ajeeg léegi euh, téeméeri at la ak daanaka mu ne mu mu mu mu dajee ak mbooloo mu bëri ci ulamaawul penkoo xarfu misra ak Shaam ak Iraq ñoom yépp bañ ko gisee nangu nañ ni kii dafa raw mu bëris mooy ku am tëbris mu bëris ci lu xëy jamono ji moom la ñuy firé ku agrégé ñu seedal ko tëbris mu ne mu continuer di jàngale ba faatu gannaaw bu mu demee Maroc ziyaare yi Mawlaana Xatbu Tijaani fekk fa mbooloo mu bëy ci kuuyi tariqa bi ñoom ñépp ñu ijaasaal ko ñoom ñépp ñu diim ko ñoom ñépp nag ñu tuñoog moom waxtaan ci mbóot yi loo xam ne duñ ko bind ci këyit duñ ko xool ci bët ma terewul dellu si na Sénégal fii ba mu ajee ba pare dëkk Kaolack tariqa bi tasaaroo ci loxoom tasaaroo goo xam ne ci diggante boo xam ne mën nga ko kontal lu ëpp téeméeri junne nit ñuy jàpp ci moom te nag yi maam alaaji ay tijaan la loolu nag laa tontoo ki ma ne bala nga wax dara wax ñu bàyyi ku ko jox wér na tijaan xanaa xam nañ ko nag ci xalim ak bàyyi waaw léegi ma ne ci gàttal lool tarixa tijaani yi xam nga moo ñëw fi indi at mu jot ci keppaaru Katmiya ci prétexte Katmiya lu ñu neex ñu wax ci lu baax ndax mi ngi ci xaddis anil bahri wala xaraj booy wax kéemtaan waxal géej rek lépp léegi kon li ñuy waxtaanee yépp tariqa tijaan la tariqa tijaan nag mag ñi suma xol dal na xale yi mel nii yéen yii suma xel dal waaye bu kenn naagu dimb rek lañ ma nettali koo xam ne ca capital ba ma nga naan jàkka ji nga xam ne bokk na ci ñi ko doon financé kenn du fi jàng salatul fatiha mooy mooy ndeysaan miskin tabaski dafa waroon wax lu gën a wóor mooy maanaam kenn du fi julli ci yonent bi mu gën a leer ah maanaam dugg ci biir kër gi ne bu fi bu nit tudd borom kabural kalimatan ba moo tax lii buñ ko xeet surtout bi yàlla xéewlee lu baax lu waaye wax dëgg gu waaye wax fi ne yaa ngi koy wax ñi teew ak ñu sori ñoo xam ne xamoo leen sax man am na loo xam ne du tiitaru ndax loolu su ma ci jaaroon romb naa ko bu yàgg ah, dama rus yàlla pour wax lu ma jubluwoon moom mais dama nekk foofee ñi ñu doon décoré ma den dëkk ak kilifa gu jigéen gu nekkoon sax wasir bañ ba ma gisee eh, leen ma de billaay lii lu am la du douze rek la eh sëriñ bi. yow de yow de defar nga ma pour wax yi buñ ko xeeb gisa géew yi mu ne maa la déglu ngay waxtaan ba nga paree ca laa jeex na kenn mënatuma mer lool lu ma seet lu ma waaye bëgg xëccoo man moo ceela ko baal naa ñëpp ci kaw suuf ma ne ko ah yii jarta waaye nag ku fi wax njaaxum itam xamal ne ñëpp a ngi lay dégg seetlu ko rek hmm? tarixa bi nag moo laaj yii ma doon laaj ñu ne nañu waxtaanee muqaddam ak la ko def muqaddam ci tarixa bi wata ma ne luy lijaasa tontu gu yomb la majaasahu daganal na ko daganalal na ko lam sañutoon yow sañoo dem maye wirdo léegi ki ko sañ wax na la ne mun ngaa maye wirdo te nag ijaasa dafa làmboog luñ tudd ci baat bi comme neexoon nga auditeurs yi naan tarixaa ngi tarixaa ngi waaye fekk joxe woo dara waaye nag buñ ne ajaasahu dafa ànd ak baarakahu <laughs> danaa ci ñëw bu gaaw rek e kon nag loolu jox nga ko ndigal sañ na lu mu sañutoon mujiz nag mooy ki am sañ-sañu joxe ijaasa al muqaddam foo ko gis am na muqaddim loolu al muqaddim mu maa wujida muqaddamul muqaddim muqaddim boobu nag mooy koo xam ne danañ ci gën a wax ci kanam tuuti waaye ci téere tariqa bi dañ ko gàttale quddima man yaarifu kooku nag mooy dem ba egg ci sañ a taqdim mujiz mooy koo xam ne dem nga ba nekk njiit ci tariqa bi ci martaba euh, euh, euh, maanaam alif alif wala alif ba wala nga yegg ci wala nga nekk ci marsa ba maanaam ba alif wala baa baa euh, dinaa leen wax lu ma ci jublu mooy kisañ waaw kooku mooy muqad muqad muqaddim kisañ jiite muqaddam bi ñuy wax fi mu ne bugg a wax ne maanaam diw muqaddam la ba fi mu ne yi leer yépp mu ngi ci seen biir ñoom muqaddam bi yal na yàlla yokk seeni leer tarixa bi doomul islaam la foog du ñàkk nag euh, maa ngi koy wax te balu yàlla mbata muqaddam du ñàkk waaye bu ko neexoon ëllëg mu xëy nekk muqaddam dëgg-dëggal mbir mi iraadatu la moo tax ñu tuddee taalibe yi ay muriduuna man taaba taaba allahu alayhi attaayib min azambi ka man laa zamba lahu li nga fonk toon boo ko fonkee rek bokk ci daayiratu fonkkat yi li nga xamul boo ko jéemee xam wala nga décider ko yéene ko rek yéene yóbbu nga bokk ci daayiratu xamkat yi li nga soppoon sopp gu woyof soo ca nga daawoo sopp ko sa xol ba mu jaral la dara ndax lu nit ma sa sopp jaral la ko dara rek dali bokk ci ñoom moo tax muqaddam radiyallahu anhu mbata muqaddam pourtant soreegoo góorgóorlu kooku euh, mooy kii nga xam ne jox nañ ko ndigal euh, euh, am na sifatu borom mu neetu jox def na ci ñetti bayti waaye ma ne lu tax sax ñuy taqdim nit ankañ mënta ñàkk mbir su fekkee ne dafay yiw diine jim nekk ci biiram wara a wara war a daj moom mu ñëw muy tariqa bi yonteel Muhammad damaanal sidna cheikh ne ko de du dog ba bés pénc il faut ñu organiser ko gis nga taqdim kat lim doon doon mbiram ruuxaaniya ak barke ak baatin ak ndigal mi ngi bokk ci organisation ndax laa yaslahu nnaasu fawda la sarata lahum wala sarata ila juhalum qalu il faut ñu xam lu nekk koy amee xam ne bu toggee ceeb njaayeen njaayeen caalit waaye soo ko loo woon robo du ko mun a bind am na koo xam ne mënta yendu lu diis waaye mun na laa wax loo xam ne ku ko dégg mu jar nga jaral ko mu yendu lu diis kon nag euh, taqdim mënta ñàkk taq taqdim mënta ñàkk kon nag moo xoo ne li taq taqdim yaa tura xam nañ ko mooy taq taqdim mënta ñàkk ndax organisation la bañ xam lii tubaab yaa kiyee kii kii boo soxlaa koy dem waaw ma ne wa mataa kañ la ñuy taqdim nit mooy li ci ëpp te gën a am asaala ki ko yar seetlu ba gis ne war naa mun a jiite ñeneen waaw mu jox ko ko ijaasa gi ma doon ñaan ma doon jàngee tuuti ijaasa gi ma doon jàngee tuuti nii lu daa kooku musuma ko xalaat musuma ko ñaan foog naa sax man du ma am lijaasa parce que man li man soldaar gi baax na ci man wala nag kooku itam yëg ci boppam ne am na taaqa bu mun a def ci tariqa bi mu dem ñaan xam na ala stixyaay ndax jox ma lijaasa daanaka mooy jiital ma fal ma tuuti daal nit dana ko rus waay kam su waree am itam waxal ba xam rek ndax sëriñ bi mooy xam war na koo jox wala waru la koo jox waaw ma ne mata mooy mata saxatil ahliyatu imma bi talabika saadiq am bi mulaaxasati cheikh wa kayfa ankay ah, nu nekk rek ndax mbootam lijaasa nekkul ci mbind mi mi ngi ci wax waaye bu ñu ko bindul kenn du ko xam mbir maa ngi ca wax ga waaye nag bind mi moo koy moo koy moo koy yaxal aqsaamu lijaasa nag comme ci la gën gudd tuuti waaye quand même mën nañ cee wax léegi waaye bala ñoo sori dañuy wax al muqaddamu alayhi mooy ndongo li ndongo yi liggéey bi yëpp ci ñoom la jëm sëriñ biy def taqdim ba jiital kenn wala keneen wala keneen bu toxtoo nag lim xam ne jumhuur bii fi nekk gëm yàlla bëgg yàlla yonent ba nekk ay tiijan war nañ am riaaya munazama ni kon euh, maanaam kon du ko jarati waaye nag fokk mu am ay jëwriin yoo xam ne dinañ wax si nag nu muqaddam ni ñu wax ñoom ñoom ne noonu la war a mel daal churutu sixaat yi ci wér doo xam nañ ko mais churutu sixa lijaasa mooy ki la lijaasaal fokk mu doon moom itam ku am lijaasa faqidu shay laa yuti maanaam ku amul lijaasa lu mu jàng-jàng lu mu refe refe mbind mënta jox ni lijaasa ndaxte bi isni yi jooja boo ma ko fàttewul dinaa toj laay jooju ci alxuraan bi isni yi yu daraa fa nekk yaa nabi na arsalnaaka ba ca bi isni yi daraa ngi foofu boo ma ko fàttee nga fàttali ma alors euh, charte bi mooy rek ki ngay yenduloo na attan yen bi ki ngay jàng looloo na fekk jàng na ba pare xam ni ñuy jàngalee ndax du ko jàng rek mën a jàngalee hmm? na fekk mu mën a faj su mënee faj nag talaabiir mu gën a ti kon nag sifaatul muqaddam mooy sifaatu kulli muqaddamin fi rukni min arkaanil wujud te nga sérieux mais nag lii nag moom aju ci roxo nit ñi ak seen saadatu gën a sérieux ti charte du charte yu bëri yu lim waaye nag am na yu ci seet naa cheikh lim ci ab leetaram boo ko mën na laa jox daal euh, ab nazra ci vraiment boo dee muqaddam lii jafewul waaye nag euh, ndax ñëpp a ngi ci nañ déglu ba xam euh, ma ne woon luy luy maana ulu sanad ankay ah, ulu sanad ci ilmu xadis lañ ko jëlee mais am na ci di fewe tey su fekkoon ne euh, maanaam saalixu dafa lijaasaal jaamiu jëlee ko ci shérif euh, ba mu yàgg saarihu daje euh, dajeeg shérif ci boppam am ci moom beneen lijaasa kooku sanad ga jëm na ko masalan maamalaaji radiallahu anhu cheikh sukkari lijaasal na mais nag bokk nag sukkari sëriñam itam sëriñ sukkari itam lijaasal bàyyi maamalaaji lijaasal na ko sukkari lijaasal maamalaaji waaye bàyyi sukkari lijaasal lijaasal na ko mm, wax ma sax lijaasal bàyyi sukkari dañ koo gàttal waaye loolu ëpp na lijaasa bàyyi dafa ne sukkari daf ko ne doon nga ma sama maqaama waaw daf ne ko doon nga sama maqaama bàyyi daf ko bind leetar Sukayri jot leetar ba maa ngi amee nusxa ba ba Sukayri ne ko jot naa sa fekk na ma doon woy alxasaayisu kubra baam te nanga mi junne béy xëy xëy rek kerset mënatuma wax benn béyti déglu bu baax mu ne xaw ma lu tax ba sa leetar bi ñëw ci laa xamee ne ay yëf a tax wa minha intiqaalu shaa'iriyati ilayka Sukayri nag du tëgg ay na du nag naa kii dama doon ku mën a woy nangami junne béyti ci ab téere booy woy pour yombal ko xëy mënatoo woy benn béyti lettre jógee ci Afrique ñëw fekk la fa nga naa ankay ndeke sama woy woy mën a woy gi dafa toxu ci yow mu ne ko xalaalakal jaww min kulli musaaxim jaww ji amatul benn picc muy naaw di xëccoog yow sukkari moo ko maa ngi amee lettre mu jigéen mu bind ko ko ay woy ne ko wa inni ara cheikha tijaaniya xaataman wa anta alladi qasirta fi lxaatamil fassa mu ne ko maa gis cheikh ama tijaani bu di ma sama ndaay ab jaaro waaye jaaro ba am njong lu nekk ca kaw maanaam jaarob jama jama bang ca kaw ma gis ne yow yaay njong la shahidtu lakum fathan mubinan bima bikum bi la bi la min bayni bariyati xat xassa maa la seedeel man jël suma responsabilité ne am am nga fatxu gu wér boo xam ne yàlla la ko jagle ci biir mbindeef yi te bokk sax benn béy si boo xam ne loolu waykat dëgg-dëgg mu na ne ko ida lam akun lissan tasawara fi lhawa ala suurikum la bidaa an ushbiha lissa li mën a carax ci sa ngëneel yi su fekkee duuma sàcc buy tëb miir wàññiwul dara su ma niiru niiruloo sàcc buy tëb miir <laughs> donc xam bay jub ndax léegi nag maanaam uluwu sënat loolu ci la gars yi dan ci xiir waaye duñ ko ut mel ni kuy rawanteeg sëriñam de yàllaay def rek mu tom mu mu may la ko diit nag balaa maa tàllal te ji ci boppam moom moo di takkaayuwaat amaat azimatu ne sàggan gi nga sàggan ci di passé ay fan wala ay semaine wala ay weer ci tariqa bi léegi dogu nga ci takkaayuwaat jooju nag li koy li koy jëmmal mooy nga dem ci sa sa muqaddam wala ab muqaddam bu wér nga ne ko eesalal ma li nga xam ne ñëw ci ni ne ko jëddit lii ar tarjamana sa azimatu pour takkaayuwaat loolu mooy eesal loolu nag li koy indi mooy ak sàggan goo yëg ne gaar na tijaan yi nag ñi ma xam ñu bëree bëri bëri kenn du ci nax sa bopp boo sàgganee rek tuuti da nga koy xam gis naa taalibe baay bu nekk New York dëkk Ghana di liggéeyee fu sori par rapport ak booy def ma ne ko ah mu ne man man damay obligé yenn ay sax euh, wérdu ma ne ko yow yaay julli nag fi mu ne ndax fam ne ñu bëri bu fi nekkoon dootuñ dootuñ wérdu gaa yi ñaa ngi noonu léegi kon euh, sàggante mooy indi ñu beesalal la nga sàgg nga nga kii waaye nag am na tëj di du tëbarut waa ji yëgul dara sax ci ak càggan au contraire waaye nag dafa gis koo xam ne xemeem na lam ne rek mu mel ni ko kuy sàkku ci moom barke ak mbëdël léegi nag biñ waxee ne lijaasa xaaj enquête gis nga lijaasa pour gàttal maanaam kenn sañ te may wirdo waxantumaa nag la ca la ko passé te amoo ca ndigal euh, pour nga am ndigal foog nga am ijaasa ijaasa boo xam ne ka la jox itam da ngay xam ku ko jox ndax dañu wax ne law la sanadu la qaala man shaa ma shaa toxtoo nag jëlee ci diw jëlee ci neex nga wax nu la neex bu toxtoo nag cachet bu bu weex boobu nekk ci baccalauréat nga xam ne amul encre amul dara bu wow boobu kum neex nga tàppe lu la neex ne ba ne waaye nag sënët mooy saxal loolu sënët nag boo seetloo am na fu ko bàyyi tënk ci ifaadatul murid wax na nee maanaam innal mulaqiniina laysu sawaan ñii yar ñi ñiy jox ni ñi wirdo yemuñ poids yemuñ daraja mu ne am na fa minhum muqaddamuuna boobu ñoo muqaddamuuna rek mu ne wa fihim shuyuxun kummalun xulafaaw an cheikh radiallahu anhu noo koy xamee mu ne lahumul iznul mutlaqu wa tasarufu wa tarbiyatu ñooñu ñooy ñu mag mooy nag ku nekk muqaddam kese du jox kenn mbóot lu mooy luñ ko digal sarix dëgg bu baax a baax a baax ñu ko wax rek ci ñuy jox nit ñi ku am lijaasa litlaaq la muy def loole lañ ci jukki wax ko waa ji muqayat boobu muqaddam boobu rek mënta jox nit lu mooy loola ñu ko yaxalal mënta gis lu ko niru wala mu raasaatu di ko ko jox en tant que muqaddam ci ni ko bàyyi bëggee mu ne itam am na nag muqaddam suyuuxun kummalun muqaddam lañ yoo xam ne ay sëriñ yu am kamaal lañ Alfayda FM mu ne dañu muutu Seydina Cheikh radiyallahu anhu am nañ ndigal mutlaq boo xam ne tënkootul boole ca tasarruf xaw ma jaaluy tasarruf mais xam naa ne dafa gën a cadré sañ na lu lu keneen sañut wala mënu ko soppandiku ak itam yar yar bu am njëriñ mooy tër bi waaw xam ne nag da nga nekk rek muqaddam kese bàyyi mu ne doo joxe ndigal ci luñ la wax bu wóor ndax sa ndigal dañ koo tënk kenn ki ci des nag moom ci isnul am mën naa jox taalibe bi ñaan yi nga xam ne isnul aama ko indi du xusuusiya waaye nag soo ko buggee leeral dëgg dëgg dëgg da ngay seet par exemple tey ci mun nga dem ci kashful xijaab luñ tënk loolu si na sukkari tàllal ko nee taqdiimu mutlaq ñaari xaaj la taqdiimul muqayyad ñaari xaaj taqdiimul muqayyad lay mujjee taqdiimul mutlaq mu ne moom itlaax boo xam ne day continuer ba bés pénc waaye nag ci joxe wirdo rek la maa waxuñ la nga jox nit ñi wirdo tey wala waa Kaolack rek wala téeméer nit wala junne day yow daal am nga ndigal ci daa iman ngay joxe wirdo ba bés pénc kooku itlaax la waaye itlaaqul muqayyad li talqiin al awraad al laazimati faq wa hakaza saani ka nga jox itam boo ko digalee noonu rek lay mën mais loolu baax na waaye nag dafa am itlaax boo xam ne borom itlaax la comme ki njëkk wax noonu mais dañ ko ci yokkal tal talqiinul askaari xusuusiya sañ naa joxe ci sikkari xusuusiya yi buñ ko waxee ñoom xam nañ ko te ko ci egg itam xam ko waaw ñi nga xam ne al maktuuma wa xayriha mutlaax nga mën ngaa jox kii buñ la digalee mën nga joxe ba ba sax askaar yu ñuy nëbb ak yeneen yi nëbbul sax mën nga ko joxe ci sa itlaax googu keneen ka muy wax ñëw mu xëyat nag euh, ñaari xaaj benn bi mën ngaa maye wirdo rek mu wax leen mën nga ci boole yenn askar xususiya waaye nag amoo droit ci def muqaddam mu bu mënta def muqaddam mutlaq la waaye nag itlaqiyatu gi dafay dem ci mbóot yi mën a joxe zaid alal wirdi bu ñu waxee awraaj rek mooy mooy wirdo wasifa si kër sa ajuma am na nag yu ñu la digal ci asraarul xususiya nga mën koo joxe mais nag amoo droit forme muqaddam mutlaqun muqayyadun la kon xanaa mu ne léegi mu xëy mu euh, xëyeen lay wax Euh, moo tax kooku sena sukkari ne ci martaba boobu su fa jógee kenn du ko uutu ci loolu parce que ba mu fa jógee la jeex am na ne ko xam dañ ko wax ne mën ngaa maye wirdo mën ngaa joxe ay askar xusuusiya mais itam mën ngaa former nangami muqaddam fukk ak juróom benn wala lu la limité rek bu jeexee baal kon nag ku makka ndeke moom duur sax ay mutalax yooyu ku yàlla may la boo xam ne euh, dafay am yu baaree bari yu ko yàlla jagleel euh, nga xam ne mën nañ koo mën nañ koo tënk ci mën nañ koo tënk ci masalan ku xam ne fii nga war a yem soo tënkoo ci lii la sëriñ bi wax boo fa yemee da ngay xam ne ñàkkoo waaye da nga eggut fële rek te itam duñ la yemale ci lu dul sabab am na sabab mu ne su boobaa da ngay xam ne asalaamatu fi iltisaami xududil isni lii jàmm mooy fuñ la yemale nga yem fa ndax yow taalibe nga bu ñuy defar nga doyloo ki lay defar la des ci waxtoo mu ne mu def ko ci jàng salaatul fatiha wa tarkil baxsi an il asraari lati fi l kutub te yow bul def sa bopp mu xam na boo xam ne mbóot yi dafay jàng ci téere yi di seet ay mbóot def ko mbóoti tariqa bi di ko wane waaye déedéet wa tarkil asra al bahsi an al asrar allati fi al kutub aw fi aidi al ammati muñ nag rek xata yajida cheikhan كاملا عارفا بالله له الاذن المطلق في طريقته وفي جميع اسرارها وله الاذن في التصرف فيها mujël da nga gis nag léegi sëriñ boo xam ne sëriñ la kaamil la xam na yàlla am na ndigal mutlaq ci tariqa bi ak mbóot yi ci nekk yépp te am na ndigal ci tasarruf ci ci mbóot yi fa yaaxuz anhu sirra suba boobaa mu jël ci moom mbóot ma wa illaa falaa yadurruhu ida staxna bi awraadihi laazimati muhaafizun ala shurut su amagut sëriñ bu mat boobu na jàpp na na yem ko yemale ci ijaaza tam jàpp ci wirdoo wi te fonk charte yi te bàyyi nee na sanadul xaafis mooy bi jaar ci cheikh Mouhamadul Xaafis mi cheikh Ahmad Tijaani yar mu am ay at faas am na ku ma ko doon laaj ne ma professeur Monté dafa wax ne cheikh xaafis est-ce que cheikh la dajeel ba mu ajee wala ab talu bem l'histoire n'est pas claire ma ne ko c'est très clair moo ko xamul daje naa kii daje naa kii waaye da ngay dem ba ba muy tagg cheikh Mouhamadul daf ne ko bi sittatin inda nabiyi aqamtaha wa bi sittatin fi lbeyti di lastaari wa sinina fi arjai faasa aqamtaha tawi biha li muashashi l anwaari maa ngi barkelu di jottali ko ci juróom benn weer ba nga aje ya nga am madinatu munawara ak juróom benn weer ya nga toog màkka at ya nga dem faas ya nga nekkoon faas daje naag ñoom ñëpp moo tax tubaab bi léeg-léeg dañuy gëstu waaye duñ egg fenn fi mu cheikh al hafiz mbóot yi ñi ngi ko jëlee ci Seydi Mawlud Fall ñi ngi ko jëlee ci Seydi Mawlud Fall sanadul xaafidi mboot yi uxidat an Seydi Mawlud Fall radiyallahu anhu wa huwa an xulafaay cheikh yi Mouhamadul Xaafis radiyallahu anhu mu ne waqad talaqa al asraara an saydi abi yaasa ibni alxalifa alxaaj saydi ali xarasim wa nasabaha ilayhi wa halumma jarra wa laysa fi dalika maa yuxillu bil adabi incha allah dégg nga ni ko waxee mu ne maanaam cheikh alxaafis ñëw na euh, moom mi ngi jëlee mbóot yi ñuy wax ci abu yaasa doomu saydi ali xarasim xalifatu cheikh te itam wax na ko askan na ko ko kon nag maanaam mbóot ndigal la sirru yasri maal isni kon ñu jàpp ne kon ci ci ci tënkal ab ndongo mooy nit bu la mayee wér nga di nga jàpp ci may na la saadatu daaray ni bu demee ba gis ne mun ngaa jiite ñeneen bu la joxee sa benn mu doon tënk ak mutlaq nga mën a may wér du koo may mu may wirdu rek soo ko digalee waaye doo def mukk muqaddam mutlaqan wala mu ne tënk naa la waaye nag boole naa ci ay asraar xusuusiya wala kii tinki naa la waaye fii nga yem waaye nag ku tinkeeku te doo ënkoo ci mukk la wax na ñooy xulafaaw yi ndax réwut a respecté nag waaye ku yàkkamti wala laajte woo wala lii ñuy wax di yi wax li ñuy wax discipline maanaam lam tataqayyad bil aadab te képp ku taxi bil aadab suñ la ne fii ngay yem da nga fay yem Euh, dégg naa te bu fekkoon ne ñi ma ko doon wax duñu ay siqa lu ma ko nettali te itam nettali ma ko lu may mu ana mutaxassirun am na lu mën a xari mooy léeg nga gis ci ab ruq ci Sénégal mu xaddam boo xam ne euh, amul lijaasa te ma ngay joxe am na ci ab dëkk ci Europe suñu suñ benn xamee murid bu fekkee ab jotaay ñu fay séddale ay lijaasa ba jox nañ ko ca loolu dañ koy wax nii pour que ñu moytandiku loolu lijaasa da ngay jox lijaasa man ñu ne xuddima man yaalamu man yaalamu lan au moins taalibe yi pour ñu mën a jëriñu ci moom su fekkee ne jàng na xam na jub na ñu ne mooy gën fuuf ndax loolu moo jaadu waaye bu soriwul ci jàng itam te xam na wirdo yi lan la charte yi lan la wirdo li koy yàq lan la soo jamajee ci wirdo noo koy jàngee te lu yomb la téeméer saatu fatiha ak waxtu wi nga xam ne dañ koo tànn ak waxtu daruri bi yooyu yëpp nga xam ne ku ko topp toppatoo xam ko soo ko so so so au nga xam loolu ba pare xam ne lii liggéey la lu mu néew néew yaa fa wutu Seydina Cheikh kooku euh, ku ko xam da ko fonk waaye nag ñi ñaa ngi daje ci dëgg di am mbooloo ci dëgg mbooloo am na teraanga fonkee ci dëgg bu mu tax nag nga gaawantu dem di joxe te amoo wér te amoo lijaasa laa bëgg a wax lu garaaw a garaaw a a garaaw la te dafay mel ni am na ci lu niru këf serviette nit buñ tëjee ay numéro te xamoo lu koy ubbi mais nag dafa uuteeg serviette yi ndax soo koy dóor dafay infijaar yóbbuwaale la da ngay bàyyi rek la ku ko xam ubbil la ko dégg nga li wax kartawal bu am bomb ci biir am urus ak nga sàcc ko te xamoon nuñ koy ubbee bàyyi bañ ubbil la ko ndax mënoo ko ubbi te boo ko dóoree bomb day tàkk damay misaal bëgg naa nit dina yàkkamti ba koo xam ne ci ñëw ne nga jox ko lijaasa maanaam moom mu ne day seet si gars yi ci luñ ne xam nga du sikki mu xaddam bi lu may ci benn point mooy bul yàkkamtee dugal nit ndax yow li nga soxla mooy da nga uutu ay leer leer nga war a jëflanteel gis naa ku woon fii Medina yàgg na tuuti gis nga soroor bale ca càmmooñ ca jumaa ju njëkk ja foofu lañ ko dalaloon waa ji jooy la egsi Medina mu koy jooy rek di mu dem ci bàyyi génn rek bàyyi na tekk di ko xool ñu toog toog rek waa ji ñibbi toog toog ñibbi kenn defalu ko dara defalu kenn dara te dafa meloon ni ku jeex ci yàlla ñibbi kenn déggatu ko ba bésu tey bii waaye daf koy def gis naa ku ñëw foofu ci lal bi ci côté télé bi di wax mel ni ku bugg a jaxase mel ni kuy bàyyi na parti di ko xool rek waaye ji wax wax wax ba mu yàgg rek mu jóg dem hmm. ah, waaw wow maanaam ndigal lañu wax dama doon jàng aayay yaa yoo nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa siraajan muniiran xoolal oo na yónnante bi mu yontaan Muhammad ne ko maa la yónni xanaa kon leer na am na ni ko koo yónni kay mën naa def li nga ko wax détaillé ko ne ko shahidan kon sañ na shahada wa mubashiran sañ na tabshir wa naziran sañ na nizaara wa daa'iyan ila allahi leeral na ko waaye lu tax mu tekkee bi isnihi mag ñi ne assirru yasri ma al isni bu yàggul nag ma seetlu ne ndekkite gannaaw isni rek wa siraajan muniira ci la leer door a ñëw yaa ngi may dégg wa siraajan muniira mi ngi door a ñu ci laay ji baada al isni maa fi isni maa fi siraaj ñu bëri dañ ci ki werante waaye boo ko seetloo xam nga ne waa ji ma nattali ne te kooku doomu sëriñ bu mag la ci Sénégal moo ko nattali ñu toog rek mu ne waa ji tàmpam bunti nekk bi mu nekkoon rek ne dalaj ne maane yaa jaamiu ah ma yaa jaamiu lu ci nekk mel ni luñ koy aayee la ma ne ko boolee nga ci lu ci bokkul la yaa jaamiu rek <laughs> duñ ko aaye kenn day waroon nga xam sax mbóot yi nekk yaa jaamiu ba ma koy bàyyi di jox ca Xaayra Alfayda FM bon léegi kon ñu ne kon muqaddam euh, am na yuñ taamu yu seet na Cheikh wax ci benn leetaram dama ko wëri woon ma gis ne sidna cheikh nee radiallahu anhu wa ardaahu euh, maa ngi dénk képp ku nekk muqaddam pour mu mun a joxe wirdo mu doon ci jikkoom am jikkooy jéggal mbokk yi buñ amee rëcc rëcc ñi nga xam ne moom mooy seen muqaddam te itam an yabsuta ridaa afwihi ala kulli xalal bu amee lu ñàq lu juum dëgg bu rëcc na nga na nga ca muur sa malaanam sutura fexe rek ba defar leen وأن يتجنب ما يوجب في قلوبهم ضغينة أو شينا مقدم سيدنا Cheikh nee na dafa war moytandiku taalibe yi nekk ci ronam muy provoqué luy indi ay mbañeel ci seen xol yi ak ñaaw wala sax xeqd lu tax ñuy ñaanante waxtu wu nekk mu ne an yasaa fi islaahi zaati baynihim muqaddam mu ne fu mu yëg rek ci biir taalibe bi ak jubóode rek na gaaw jubale leen Cheikh ay wax wa fi izalati kulli ma yujibu bughdan fi qulubi ba'dihim li ba'din lépp luy tax ñuy bañante seen biir taaliba yi bu mu jo bu ko seetaan da ngay fexe ba faj leen parce que yaay seen docteur wa ishtaalat naaru naarun baynahum saara ali fi itfaiha safara wu takk seen diggante ñoom ndongo yi yow muqaddam bi gaawal fay ko ka jikkoy lislaam mooy maanaam shurutul kamaal yi waroon a tolloo ci wirdo te nag lu mu ciy def na ko def lillaahi wali wali wali wali mardatillahi bu mu doon benn xas bu mu cee wut képp ku mu gis muy dox ci namiima ci diggante taaliba yi maanaam di yàq seen diggante wala diggante ñaar sax rek na ko ko tere te fexe ba faj ko bu koy jàjj itam nag mu ne na ko def bi rifqin wa kalaamin la yinin bul ye boo yeddu si taal ba yeddu ko ci teey ak wax ju nooy ñu ne boo yeddee sa boo digalee sa mbokk ci mbooloo gàcceel nga ko boo ko digalee nag fu kenn nekkul bakkan ba du am lu mu lay dana ko nangu te booy jëflante ñoom rifq wa taysir loolu yëpp adabul islaam la yombal ko wal bu'di ani tanfiri wa taasir luy tax nit xolam daw mu muqaddam bi bu mu jógee ci yow muqaddam bi wa alay an yatabaad an tagrimi dunyahum taalibe yi seen addina yi am ay am am ak ay yu rafet ak ay alal ak yooyu yow bu leen ko yàqal bu leen ko yàqal bu leen bu leen sonal ci ci mbiram addina ولا يلتفت إلى ما في أيديهم معتقدا أن الله تعالى هو المعطي المانع والمانع te itam taalibe bi li mu amee di wërsëgam ak yim yore comme moom mi moom mi la fare suuf bul ittewoo loolee nekk ci loxoom na nga fàttali ko yàllaay joxe mooy maye mooy xañe yàlla mooy xaafidu mooy raafiu bul wékk sa bopp ci taalibe bi wal yaj'al himmatahu fi tahriri dunyahum min at-tashtiti wa tabzir moom daal lay teewoo seen àddina bi na ko libéré ci luy tasaare ak luy yàq wa an laa yatlubahum bi itaayi cheyin la min al qalili wala min al kasiri muqaddam bi bu doon moom mooy laaj nee na ndongo yi muridiina yi bu bëreeg lu tuuti illaa ma samahat bi nufusuhum min gayri talab bàyyi taalube bi lu mu mën rek xolam may ko ko mu yéene ko bu ko joxee baax na cheikh wax de fa in uqula annaasi xawla hada almataafi taduur parce que mbiram am ak indil yooyu nit ñi loolu rek la seen xel yi di wër ko cee leen ko wa ala hada almiqdaari tajri bihim ñoom li fi fi seetee ba jëriñu mooy ci mbiram liñ xam ay alal ay yu fet ak yooyu tegu naa fi koo loo téye nii rek daal di jël te pourtant benn rek nga boo jëloon fukki portable ci fukki taalibe itam benn rek nga ci mën a jëfandikoo <laughs> waaw mun xëy tolab ne lii ma ñu ngi ko jukkee ci leetu Seydina Cheikh kon nag yii mooy wane ki nga xam ne dañ ko tànn mu jiite di di won nit ñi liñ xemam ci bàyyi liñ xemam ci Seydina Cheikh liñ xemam ci muqaddamin saabiqun al awaluuna ñi bàyyi yaral boppam àddina yépp di leen ñee ba ci tudd nga di ko ñaanal maanaam il faut que yow yaay nekk ca kaw bañ fekk la fa soo wàccee fekk leen ci suuf seen na seex loolu lay bañ mu ne am na yoo xam ne mu muqaddam bi na ko jàngee ci sunnal muhammad yi ah. ndaxte yonent dana defar nit kenn du yëg ne moom moo juumoon diw ak diw def nangam bu ootee asalaatu jaamia du wax ne lu tax sàmbak déedéet dafa naan maa baalu qawmin yafaluuna kada wa kada dañ leen jubbanti ñe ñe def xam nañ mu muqaddam xam nga maqam bi ñu ko teg kon dafa koy dafa war a roy yonent bi ku roy Seydina Cheikh bu dee ci ñun roy Baye mais moom lay tuddee Baye liggéeyam day yomb te ñëpp koy te lu mu soxla sax daf koy am day mujj sax di may taalibe yi bu maslaa nee na bay nëbbu yàqute yi ngir bañ mu ñu mer déedéet fexeel ba jubbanti leen te doo leen gaañ kon liggéey la ba tey itam bul xaar ñu yëkkati la daañu la yëkkati nag ñu ngi ci nett li mu ne euh, ca Qahira ca Misra benn benn suufi nee diw dafa ñëw dugg ci jàkka ji fekk ñu kilifa gu mag la mu dem ca saariyatu bi di julli euh, ñu ne su paree ñu dem nuyu ko mu pare rek gaaw dem ci ñoom nuyu leen ñu ne ko ñun ñoo waroon na ñëw mu ne nag man dama libéré son bopp musuma toog di xaar ñu fonk ma mu ne tam nekk dëgg ci moom comme ni benn waay Baay dem Màkka de benn sëriñam dem Màkka ñëw benn xaritam xëy na dem Màkka ñëw rek mu xam ne dana ko nuy si rek mu jó mu jógee mel ne rek jógee ay bor rek jaar ci waajo nuyu ko alors pour noppal ko ci mu ñëw ndax kooku sëriñ mooy sëriñ bi waaye terewul mu ne ci fajar rek mu gis ko mu julli mu nekk ci gannaaw mu ne ko lële sa mbaax gi la lii nag sa xàq la mooy Abu Ali Daqaax bi ngeen xam ba kon nag maa ngi wax ne daal waxtaanu ijaaza bi fàttali la ak ak ak tënk buy mën a jàpp moo di ne lijaasa lu am la mënta ñàkk itam mbooloo buñ ëppee téeméer ëpp junne di ay junne ke leen yëlit foog mu am ñu ko wuutu ci ñenn ci ñoom ku ko nag dèjà rek na nga xam ne yaa ngi ci martaba bi waaye nag xéwal la xéwal la de te Ibnu Zurayq waxoon na wax joo xam ne ko kooku du waxi shaayir de fa man gada laabisan sawba naimi bila shukrin alayhi fa anhu llahu yanzahu mbubbam xéewal nga yàlla solal la ku may nga bañ a sant daf koy summi de summi ji fii nag mooy sëriñ su mag si aarifuuna billaahi xam nga lii jafe ci seen jëflante bi nisbalil aaxarin mooy yow dañuy jëflanteeg yow te jëflantewuñoo ak yow bu ko defee la ca yëkkati nga foog ne yaa ko moom. loolu nag moo tax. Euh, war nañoo tasaare xabaar yi mbooleem mag ñi rawatina bàyyi ñu bëri war nañoo seetlu ne man ay fukkeet ak juróom gi daanaka li ëpp ci sama waxtaan yi fii ak bitim réew damay wax ci bàyyi dundam ak liggéeyam mais nag yàlla defal na ma ci dara ndaxte mën hëj bi mooy dama bugg wax maa ko gis muy def wala maa ko dégg muy wax wala dafa bind ma jàng yenn taay sax ci mbindam loxoom wala ñi jëlee ci moom wala ku ànd ak sagoom nettali ma maanaam xabaar yoo xam ne mun naa koo mun naa koo jaay seen naw ma loolu nag li muy jëriñ mooy nit ñi nit lu mu fonk war naa xam jëflante boobu nu mu doon saaba yi ridwanullahi alayhim gis naa fenn po ñuy wax ne jëmi jamono doon nañ compte ñaata kawar a weexagum ci sikkiñu yonent bi te wax nañ ñu xam nañ bu jàppee lu muy ñaan weewu bu dit balaa tëddaat lu muy ñaan xam nañ bu ubbi julli lu muy xam nañ bu nekkee sax ay soxnaam lu muy ñaan balaa ànd ak kenn te loolu bu ñu ko riwaayee toon dañu ko xam ñu itam nag biñ demee ba nga xam ne fi ne jamono yaatu na waaye teewul àddina di asum li communication dafa yomb. téere yomb déplacement yomb. fi mu nekk nii kenn amul daruura bu ko war a forcer ci muy fent lu amut wala muy lépp bàyyi xaqiiqa la comme Seydina Cheikh waxoon xaqiiqa Seydina Cheikh da ngay jàng ci moom ba barki démb rek da ngay jàng ci moom man dama nekk Fass ak ñi demoon ci commémoration mororu meete am ala wafat Seydina Cheikh ñu dem Daaru Miraaya jógee ko ca kaw waaye nag bi ñuy jógee Daaru Miraaya pour dem zaawiya ba ñu ngi nekk ci mun xadar bi dafa jafee dox ba nga xam am na ñu doon téye lu ko ma ñu daaru rek rus xam nga lu ma rusloo sëñ naa Cheikh bët bu set foofu la daan jaar xam nga xelam da jóge si faa këram xoolal nag fi ñu mënut a dox ñun tey gannaaw bu ñu lekkee salaat ak euh, machuweeg yooyu mënuñ faa jaar moom ci la dëkkoon ma xam ne kon nit bu la rawee sax ci ngóor a xam nga lam la raw koy raw na la noonu lañ meloon ak bàyyi nag moo tax ñu war di ko waxtaan nañ ko waxtaan te buñ ci yokk bu ñu ci wàññi ak baax ci muqaddam yi ak leen ay baaxee ak leen ay jëriñ waaye fu mu dégg loo xam ne bu ko bàyyee mu yàqu ca saasa rawatina ci at yu njëkk ya ca saasa lay réagir et na muy réagir ña ko mën a dégg dëgg sax am na muqaddam boo xam ne xam naa turam te maa ko fonk adressé lettre pour mu jàngal ko lépp dafa daf koo jàng rek xam wa billahi fa qasa li yasdajiru fa man yaku xaasiman fal yaqsu axyaanan ala man yarhamu kat ba noonu nag léeg-léeg nit gànjañ ci koo xam ne moom rek la fonk waaye ku yërëm nit buggu ko defal léeg-léeg nga tàng ci koom moo taxoon bàyyi naan aw ma diplomatie ci taalu bi ana laa atasannaau maa muridi li ma la war a xir laa waaye nam la soppee xoolal mujj gi feeñal na ko moom bàyyi mënul dara ci bi mënul dara ci dëppale dafa gànjañ fi wax doom yi am yu mu leen wax ba mu tàng ma dégg mu naan lay su ma leen di wax su ngeen gisoon sama xol bi sax bu waxtoon ngeen yàqu loolu la nag loolu la ni waaye nag doo ko bàyyi muy def lu ko neex am na ku ma dégg muy téléphoné man xaw ma nag kooku kan la waaye ki bàyyi doon waxat arab la mënu ko nee ko fal yantahi wa illa sa aqtau hadihi maddata ne ko na bàyyi li mu lu ko may ma ma dagg madda bi dootu tëb mu waaw ah, kon nag comme mbir mi am na tarqiya bu gaaw am na taxbiir bu gaaw ñu topp ndigal ak rafet njort ak góor boo boo xamul nag doo ko mën ma xam-xamu téere yi na ko ñëpp jàng waaye nañ xam nu bàyyi daan nu bàyyi daan waxee nu bàyyi daan julliyee nu bàyyi daan jàppee nu bàyyi daan xutba nu bàyyi nu lu bàyyi daan ree lu bàyyi daan ñëkkee bu ko neexee boo ko xoolee doo ñemee wax nga dugg mooy la Mahmoud yëpp nga xam ne tey jii waxal lu la neex muy muy baawaan dégg buñ ko waxul duñ ko xam bàyyi du luxsu muqaddam yépp mën na jël ci moom dërs pour nekk muqaddam misaali yi te am na sax ay muqaddam misaali yi na billaahi waaye nag buñ nañ jóg jaar ci ñooñu fañ jaaroon muqaddam bu bu ci nekk muqaddam yàlla may la li jaab yàlla may la maanaam li ñuy wax euh, xabul mais santal yàlla mais nag maa ngi lay nettali Cheikh Seydi Mouhamadou Habib doomu Seydina Cheikh radiyallahu anhu ba mu jaaree Qahira tijaan yi xamoon Seydina Cheikh ba mu fa jaaree ñëpp ñëw ulama ci guddi dalakatam bi tijaan la ne yi toog leen ñëw mu dugg ci biir ne ko ulama yi ñëw kat foog mu wax la lu leen indi mu ne ko ah mu ne ko sa baay bi mu fi jaaree lañ mosoon ci moom daf leen a tondi moom la ñuy topp si su fekkee ne pare nga pour recevoir leen wax ma bu loolu man xam naa nu may layee yu rafet mu ne ko man sax xam naa dara waaye naxu laa goree la te bëgguma yàq mu ne ko kon nag noppi ñëw ne leen sëriñ baa ngi ci awraatam yi ñu ne waay ay waroon naa fi xwa mu dem di jàng mais njàng mu gaaw fu waay toll mun ngaa jàng dara te di laajte waxu ñëpp nekk ay li Sénégal Sénégal di wax aalimu kulli fannin waxuma ñëpp doon waaye nit mun naa nekk aalimu fannin waahidin boole ci nag jikko yi nga xam ne ñëpp ko xam dama wax benn waay ne ko comme am na benn MP3 wala ñaar yoo xam ne baqara ba naa si mi ngi ci bàyyi di ko firi lu gën a wér yow loo xamul fi mu ne yàlla dana la ko laaj defal programme ndànk-ndànk lu mu néew néew mun xam nga muqaddam wala ulama yoo xam ne ci taalibe yi lu mu nee néew téeméer boo xam ne koo sonne jot ko laaj ko li nga gàgg te itam nag muqaddam benn bu doon mu xayat mu xayat wala mu xayat mutlaq shooye wala mu nekk mutlaq mu xayat wala mutlaq waaye nag ci bu muqaddam boo xam ne moo neex rek waa ji loolu xam nga amagu fi loolu damaa bëgg ñu di ko waxtaanee ci suñ biir nii bu ñu ma waxee waxtaan waxtaanal ci muqaddam ak taqdim waxi muqaddam ak taqdim guddul waaye nag fàttali la fantabihu taatabiroo mooy wax yu mel noonu li ma xam nag nga xam ne su may wax ñemee wax mooy amul benn taalibe baay bu ma gëm ne maa ko gën a dëggu ñëpp dama jàpp ne li ma bugg lañ bugg wala lu ko ëpp quelquefois rek xëy na foog ne mbir mi lu simple walla foog ne jeex mooy mooy nothing déedéet jeex du nothing jeex jeex xam boo ko doon njet xeej lay doon jeex xeej non bindal jeex xeej xeej am na solo de na daq seytaan ku jeex dootoo gis mukk seytaan lu bëri lu ñuy doon ut bàyyi leen ma wax ko nag lu bëri lu nit ñi doon ut depuis téeméeri at ak lu ko ëpp yàlla may nañu ko kenn waru ko fontoo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu